waaw daje bi li ko waral moom mooy dañu woowoon euh, waa koñ bi doon waxtaan ak ñoom ci xew-xew bi nga xam ne euh, dafa dal suñu kaw mu dal suñu kaw ay doom suñu ay jarbaat suñuy rak suñu dëkkandoo mu nekk loo xam ne dafa xew ci jamono xale yi fu mu nekk nii seen xelaat yëpp ci tukki la leen jëmee donc pour ñoom daal boo tukkiwulee mënoo am loo xam ne di ko ci sa bopp daal ci ci ci dund gi teral sa bopp teral sa waajur voilà un mieux-être loolu aussi bi mu xewee xale yi am na ñoo xam ne bokk dëkk ci koñ bi bokk nañ ci drame bi nga xam ne moom moo am euh, bu yàggul dara dimanche ñu ñàkk seen bakkeen ñun nag à notre niveau li ñu man comme ñun ñoo fi desandi ñaanal leen mais sensibiliser à travers activités yu mel nii nga xam ne dañuy woo nit ñi bu ñu ñaanee ci alxuraan ba noppi yërmande yàlla ñeel suñu way disparu yi mais aussi ñu jëm a ay solution solution yi nag bokk na ci li ñuy def ni jëm a spécialiste ñu dugal ay waxtaan yoo xam ne dañuy fexe sensibiliser la la gente euh, juvénile à travers des thèmes yoo xam ne dafay amal solo askan wi ba nga xam ne xale bu ñu ko dégloo amaana dinañu mën a am ak tiit mbala ñu mën a am ak jàngat boo xam ne dana mënta ñu toogaat fii nii mën a xoolaat seen seen taxawaay daal.